ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril ci atum 2021 mairie bu Touba di amal jataay bu am solo muy plan directeur assainissement bu Touba directeur ONAS teew ak mboolem équipe bi koy jàppale ñëpp gox noor préfet sous-préfet ak mboolem équipe yi nga xam ne technique yi nekk ci état yépp teew tey fii ci mairie bu Touba ngir fas yéene waxtaane plan directeur assainissement bu Touba ci noonu tamit Serigne Cheikh Abdou Balla ministre conseil mi ngi bi ñu ci kanam ñu ngi jotaay bi ak mbooleem service yi nga xamante ñu ngi liggéey lépp jëm ci plan directeur ñu teew ko daara hospital xëy tamit ñu ngi ci jotaay bi ci noonu nag bi ñu essayé ci la gouverneur moo jiite jotaay bi jëbal wi di sant yàlla bu baax a baax di la wax ne mu ngi ko lii rek la la la yaakaar nañu mooy mooy développement parce que euh, am réew ab dëkk ak kër def naa ne lépp dañ koy toog waxtaane ko waxtaan nag mooy mbooleem acteur secteur bu nekk mboolem ñi ko seq ñu daje toog waxtaan ci administration bi ak autorités yi locales yi ak euh, collaborateurs yi ak partenaires yi bokk toog waxtaan xam ne lii war nañ cee war nañ ko gën a yokk war ko gën a yaatal lu mel ni comme assainissement bi maanaam directeur de l'ONAS ñëw directeur assainissement ñëw fekk administration bi ak autorité locale yi ak euh, autorité autorité religieuse yi ñu bokk toog waxtaan xool nan la ñuy tëre defee benn convention boo xam ne danañu mën a def benn plan directeur de assainissement boo xam ne pour Touba ah comme ni ñu ko daan defee yàgg nañ ci waxtaan nag yàgg nañ ci daje yàgg nañ ci def ay action mais euh, nii mu demee tey yaakaar naa ne bu fekkoon ne teeloon nañ ko def li ñu ciy jàmbaar jàmbaar weesu nañ ci fi ñu nekk kon nag il ñu remercier bu baax a baax directeur ci initiative bi mu jël xam ne nañ ko def junne nañ ko waxtaane mooy jiitu euh, xam euh, nekk aussi nit koo xam ne da nga ñëw ñu du fekk mbir di dox nga ne naa ko yore naa ko fexe ba mu gën a efficace ni mu doon demee loolu aussi lu am solo la kon faw ñu remercier ko ci ñaar collaboration bi mu créé ba ñee nañ def convention ak commune bi donc euh, invité mboolem ñiy teew ci salle bi nga xam ne acteurs yépp teew nañ fi tey donc ngir ñu mën a waxtaan ci plan directeur bi assainissement bi ngir mu mën a tegu ci yoon fiable ba ëllëg ki si biir kuy def xam fooy tàmbalee xam fooy yem ñu am feuille de route boo xam ne dina ko dina mën a euh, rafetal liggéey bi. rek yéen ci lépp loo xam ne dana jëbalee dëkk bi kanam. te dana tax ñu ñu population bi mën a nekk ci jàmm parce que loolu rek la président de la république bëgg loolu la sëriñ bi bëgg te li may wax rek président de la république kenn mënul wax te remercier woo ko parce que nit koo xam ne dëkk boo xam ne luñ ne soxla nañ ko nga def nga nga ne leen mu wax ñi ko war a def nañ ko def lu mu yaakaar ne baax na mu def ko fii li ko war lépp mu ngi koy def parce que loolu la nit man loo yaakaar ne lii war na ko am nga jox ko ko luñ laaj nga jox leen ko loolu la nit man kon nag ñoom yéen ñi nga xam ne yéenay ay loxoom te nekkal ko fi ak population bi nga xam ne ñoo fi nekk muy autorité religieuses autorité locale yi ñun ñoo war a nekk benn ba yéene ji mu am ci dëkk bi am ko ci réew mépp ñu jàppale ko ba mu am ko jëre jërëjëf. ginnaaw kàddu yooyu Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacké ministre conseil moo tam jël na kàddu rafetlu jotaay bu baax a baax ak teew rafetlu jataay bu baax a baax ñu teelu kàddu yi Serigne Cheikh Bali Mbacke ministre jataay bi dafa am solo ngir anam yu bari ndax moom bi mu ñëwee dafa dafa yàggut mais waaye li wax léegi mu am démarche inclusive bu am solo boo xam ne daf ko initier mooy njëkk ci yi nga xam ne ñoo di kilifa diine yi teg ci li nga xamante ne bii moo di mairie bi wante itam bañ a bàyyi benn acteur boo xam ne ñaa ngi intervenir ci mbirum assainissement ci dëkk bi ndax intervention yi lu mu bari bari bari bu ak yëgu amut ci acteurs yëgu seq rek foog naa lu bari bari danañ ko danañ ko ñàkk kon jataay bii ñu am tey jii dafay jataay ba am solo ma ci euh, profito di di féliciter ñi nga xam ne ñooy Touba ci kanam ñoom itam ci seen esprit de collaboration ak ni nga xamante ne bii noonu lañ lëkkaloo ak mairie bi ni ñu lëkkaloo ak waa ONAS ngir ñoom ñëpp ñu xam ne liggéey bi benn la ndax li maire wax léegi dafay dëgg président la république li muy def ci dëkk bi bari na loolu waaye li mu fi def lu mu bari bari rek sëriñ bi la ko defal moom mi itam sëriñ bi lay liggéeyal daayira yi ak ak structure yi fi nekk yëpp sëriñ bi lañuy ñuy liggéeyal kon day mel ne fii ci dëkk moom kilifa genn la kuy liggéey ku ne sëñ bi ngi liggéeyal ndaa li nga xam ne fa la ñuy sotti benn ndaa bi la kon jàpp naa ne ñooñu bu ñu lëkkaloo rek di waxtaan kenn ku nekk xool la nga xamante ni attan nga ko ci diir bi nga xamante ni yaa ngi fay nekk nga nekk ca loola bu ñu ko boolee rek foog naa sëriñ bi li mu bëgg dana ko am te assainissement Touba day loo xam ne lu rëy rëy la loo xamante ni bu nekkul lu nekkul lu yomb ñoom ci ay dizaine de milliards lañ koy lañ koy xayma kon nag foog naan kenn ku ne am nga ci sa am nga ci sa place donc man collaboration boobu daal moom lay moom lay bëgg ñu gën ko renforcer ñu xam ki ñi liguel kenn la mudi Serigne Touba ñu xam ki ñi liguel kenn la moy dëkk bi ki liguel kenn la moy les populations de Touba bu ñu ko défé rek li ñu bëgg dañ ko am té lépp na rafet di xam dina xam ne aussi jataay bi jataay bu président de la république suivre la yegg nako ko te mi ngi ciy xel donc kon aussi xam parce que dëkk bi daf ko yitteel dëkk bi daf ko ñor kon aussi monsieur le directeur général ñu lay ñu lay sant di la gërëm di la féliciter ci ci démarche yi nga am ak initiative yi nga xam ñu ngi koy jël ak pas-pas bi nga am ci liggéeyal dëkk bi ci liggéeyal réew mi ci njiitu say kilifa monsieur ministre ak monsieur le président de la république di sant aussi baax a baax nañu monsieur le maire moom itam ci taxawaayam bu rafet ci ci dëkk bi ndax sëriñ bi ko wóolu dénk dëkk bi mu fi def liggéey bu am solo te kenn ku ne ci yéen mën naa témoigner ne dëkk bi maire yi mi ngi liggéey liggéey bu rëy kon yow itam yàlla na la yàlla kattanal te sëriñ bi ngay liggéeyal mu wóolu la dénk la moom itam yàlla li mu bëgg ci yow yàlla na yàlla may ba nga mën ko àggale. ginnaaw kàddu yi tamit sëriñ Ousmane Mbacke Gaïndé Fatma it na kàddu turu sëriñ Cheikh Ba mu sëriñ Abdou Khadir waaye tam turu comité d'organisation Magal de Touba ñu teewlu sëriñ Ousmane Mbacke Gaïndé Fatma. daal mbégte bu baax ci jataay ci ñi ko niñ ko sunu mbokk sëriñ Abdou monsieur le ministre ñu ngi koy ziare moom it waxee léegi rek importance bi nga xam ne. projet bi am ko waaye di wax rek ne dañ fay teew ci ndigalu serigne Bass moom sëriñ Abdou Khadre en tant que président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba ci turam lañ fi teewee de wax ne projet bi mom ak yenen yu ni yu ni demee yépp ci biir tubaa defe na duñ mën lu taataan ko ak suñuy loxo ngir ay raison yu baree bari dëkk bi ci tolluwaay ci ay nit mate na ko ci yaatuwaay mate na ko waaye ñu gis ne événement bi bokk ci gën a rëy ci àdduna ci Touba lay xewe

assainissement dafa bokk ci li ci war a jiitu muy loo nga xam ne defe naa kenn ku ci ne ci ñi fi dëkk war na ko def yitte yitte ju mag waaye rawatina ñi nga xam ne dañ fi féete ci doon fi ay kilifa paska mettit bu ñëw ci ñoom lay jaar ci loolu ñun ñi fi dëkk ñun ñëpp ñu ngi koy dund kon du ñu man lu ah di dellu njukkeel sëñ bi nga xam ne monsieur le directeur général de la de la de ci xalaat bu rafet bu mu am pour taxawal waxtaan yi pour taxawal euh, jataay bu mel muy jataay boo xam ne échange la war a doon yaakaar naa yi ne buñ ci jógee danañ gën a xam fan la yitte ji toll waaye population yi danañ gën a mën a approprier wu euh, projet bu mel ni ak yi ni demee mu doon loo xam ne it def na ay relais ñàkk fii parce que lu mel ne Touba ci kanam ku ne dëkk bépp xam lu citoyen Touba tuuti tuuti ak lu mu arrière arrière xam na tubaa ci kanam ñëpp ko xam ñëpp ci adhéré def naa ñoom dañ mën a jouer rôle boobu rôle lu relais entre population yi lu lu demee ne euh, ouvrage yu mel ni ndax ñoom ñi ngi ciy liggéey muy lu am solo wala doon ay xalaat yu tegu ci aw yoon waaye nag muy loo xam ne des fois dana compliqué may ñaan nag complication bu mën a am bu ñu hésité teg ko ci taabal ji ñu discuter ko ndax waxtaan rek mooy indi wax ndax lu ñëpp bokk ñëpp ko bokk ci ñëpp njariñ ñëpp ci jariñu moo mel ni kon ñun bu ñu taxawee ci turu comité d'organisation représentatif sunu président Serigne Bass mu Serigne Abdou Khadre dañuy wax ci turu yoonu murid wépp ku dëkk Touba ak ku fi dëkkul parce que ku dëkkul Touba ci murid yaa ngi bàyyi xel dëkk bi rawatina mu màggal jotee kon ñu ngi leen di féliciter bu baax euh, di ñaan yàlla projet bi ngeen am ci ndam parce que bari na ay tabu yoo xam ne bu ñu waxtaanee rek mu jeex ñàkk a wax la ñuy entretenir ay mythe yu dul jeex ci dëkk bi fekk dëkk bi ñi fi ne ñoo gën a bëgg dëkk bi ñi fi ñëw di fi liggéey li waral ci bu ñu ko defee ba présenté ko lépp ñu man ko entretenir man ko xam ne suñu yëf la mu bañ doon investissement boo xam ne ay xaalisu askan yu bari moo ci dem war a dund téeméeri at balaa dund ñaar fukki at commencé am problème mu jural na yeneen i problème yoo xam ci environnement bi lay lay des ñu du ko dund defe naa loolu teel a sensibiliser population yi ba ñu xam li ñu yor lan la ak nan lañ koy entretenir def naa lu ci am solo ci jataay yu mel nii rek moo mën a tax loolu loolu am kon monsieur la gouverneur def naa man loolu rek laa ci amoon ci lu may wax li ci des nag ñi toog di diglu incha allah ci ndigalu Serigne Bass am nañ ubbeeku luñ ci xam ak xalaat ñu andi ko jërë ngeen jëf. ginnaaw bi tamit directeur ONAS moom jël na kàddu mi nga xam ne moo saab jataay bi woote ko ngir fas yéene taxaw ci liggéeyu Touba ñu teewlu ay kàddu. bi jataayu euh, vulgarisation la dañuy partagé li nga xam mooy PDA ñu waxtaan ci nag waxtaan ci bu baax parce que lépp loo xam mooy développement assainissement fii ci Touba mën nañ d' abord commencé ci li nga xam def nañ ko ñu planification bi d' abord ñu xool ci li ñu planifié yëpp lan lañ ci def.

jël engagement liggéey ak ñun euh, aussi ñu leen nuyu bu baax gis nañ leen ak képp ko acteur partenaire de l'assainissement au niveau de Touba donc nous ngi lay nuyu bu donc PDA comme nous ko waxe sank lepp réalisé nañ ko li nga xam euh, des na ñu xol nak lañ ah, réaliser mais benen fànn bi moy ñu xol naka lañuy exploiter naka lañuy ñuy gérer ouvrage tout ci gestion ouvrage bi nek na lo xamni yu am jafe-jafe la parce qu'onage rek du mëna assurer vraiment li nga xamni ne exploitation ouvrage yi ñu wara def té dañ ci ñëw sank ñu xol ñu wax leen investissement yi ci def bi état bi def ak li nga xamni ne Touba Canam aussi dañu présenter tout à l'heure ñu xam luñ ci def ak li ñuy war def ci kanam parce que lepp mënu sottandoo dañuy commencer rek mais au fur et à mesure parce que ay phase la donc ci phase yoyu la mëna a xam réellement fan lañu jëm ak kañ la fi àgg euh, donc nek lo xamni suñu paree ci lolu partager échanger ñu aussi euh, woné rek suñu collaboration ak mairie mairie bu Touba ñom aussi am ouverture euh, am engagement vraiment ligue ak ñun donc nous ñu rafetlu ko coup baax donc ci faut aussi dañu présenter ben projet de protocole bo xamni euh, après xam naan dañ ci euh, xool naka lañ ko signé di wax ni population bo aussi nek ñu xam ni bénéficiaire lañu mais acteur lañu parce que sensibilisation bi li nga xam ni mooy bon gestion ouvrage yi aussi ci ci la war bok bien bok sensibilisation boobu ci la war bok ñu war approprier li nga xam ne ouvrage donc ci loolu monsieur le gouverneur euh, ci présentation yi peut-être dana am tout le rôle bo xam ni sama naataango dañ dañ ko def commencé ci partage PDA bi mise en œuvre bi PDA déjà ci projet en cours c'est ko présenté li ci ce ci présenté li nga PDA, def euh, prévoir pour euh, def ko ci mbiru assainissement lépp ci collaboration entre euh, ñoom ak donc suñu paré nak ñu xol naka lañuy jëma partager projet protocole bi ginaaw jotaay bobu tamit nak daal nañu présenter ñoom ñi nga xamanteni ñoo di waa ONAS liggéey bi nga xam doon ko liggéey ci Touba ak biñ ci bëgg liggéey ba tam Touba ci kanam ndiki noonu waaye esbitar xëye jël kaddu ak mboolem service bi nag jël kaddu bi noppee nag ci la gouverneur tëj kaddu gi ñu teewlu kaddu yi gouverneur bu jël gouvernement bi teel naa xam ne yëf yi foofu mu am plan directeur ñu xam lañ jëm parce que wax dana euh, Touba am problème assainissement problème nag euh, xalaat moo koy moo koy moo koy moo koy moo koy regle bu amee problème bu bu metti problème bu bu yàgg euh, système moo koy regle système te plan système la c'est-à-dire il faut nga teg benn système waaw il nga am démarche systémique maanaam da nga bëgg a faj dara faw nga teg benn système boo xam ne moom mooy faj loolu fan ngay tàmbalee après lan moo ciy topp fan ngay jaar ku doon ñëw tey ak lu mën a am tey xam ne bu mu bu muy duggee xam bu muy bu amul système rek lañ euh, bu fukki di gas fukki di sul, euh, pënd bàyyi bari rek waaye pax du fa mën am loolu lay indi di nga ñëw sa jàmbaar mais njàmbaar rek da dul doy nag njàmbaar rek doyul parce que bu àndul xariñ du doy donc Euh, euh, alal ju bari itam te àndol ak xarañ ak fu noo koy du du mën na laa jural sax euh, contraire ba parce que du du doy di nga soxla borom alal bi soxla borom xam-xam bi indi nga sa 10 milliards da nga ko bëgg a def atténuer ba Touba doo ñëw ne bon gas leen fii benn tuyau mu jege fi dem ba fële ah déedéet yow ya, sa xaalis boobu mu ngi yàq dëkk bi da nga naa da nga da nga naan kañ ci assainissement bi bëgg naa cee dugal li waaw ña waxtaan ak ña ko yore ba fa ñu télé ñu ne ah fi day bo defone nii mu euh là aussi ma ngi saluer par exemple je donne un exemple Touba ca kanam demoon naa fële si tóokóor ba mu fess ndox ñu bëgg ba am plan pour bëgg waxtaan ak sëriñ bi Touba kanam sa kanam ne dañ fay gas ben canalisation mu conforme ak liñ ñu bëggoon ma kon fi amatul problème je da gas nañ canalisation boobu lu mel noonu baax na parce que né biñuy waxé dañ ne fii dañ fi def canalisation bu jógee fi dem ba ca fële moy voilà mooy bi ñu demee ji tóokóor bi foofu ndox mi xamuñu woon nu ñu koy def loolu lu baax la parce que waxtaan nañ ci ak ñun donc euh, nañ ko def boo gis comme ni ko sëñ Ousmane waxee nañ ko waxtaanee moo gën parfois sax dama naan nañ ko bu buñ ko mënee defandoo sax moo gën voilà ndaxte ñun ñëpp ñoo bokk même objectif bi maanaam Touba nekk dëkk bu set dëkk bu parce que dafa am ay standard pour nga am dëkk bu moderne sëñ Ousmane wax léegi léegi pour mu moderne dafa am standard maanaam. Euh, euh, yoon même yoon yi sax léegi dañ dañ la naan xultu njaayee gi ni boo amee sa xaalis wala tabax yoon doo ñëw ne man daal yoonu 5 mètres laa leen tabaxal déedéet CEDEAO sax dañ la léegi boo bëggee day def 7 mètres 50 wala yooyu dafa am ay norme danga koy respecté doo ñëw rek ne fii daal xam naa taal bu mel nii war na fee baax te bu fekkee beneen a fa baax bu dee aérobédance la dañ la fii épaisseur bi nii la war a toll fii yaa route nationale la yaatuwaay bi mënta ñàkk weesu 7 mètres 50 yoy sax même dañu dem ba du ko def même état sax sañul né route nationale dama koy tabax 6 mètres mom xamna lolu donc nga xamné kon comme niveau sous région sax ak mondial da ngay am ay convention né ñun ñii parce que organisation moy defar deuk lolu nak moy PDA bi ñu wara waxtane tay tey naam am mais dañ ko fësal ba ñep né xamné suñu plan directeur d'assainissement mu ngi nii côté yi defatitam loo xarañ-xarañ loo bëgg-bëgg dëkk bi fii ngay jaar ci ñii ngay waxal ñii ngay yëkkatee nii ngay tegee du tax ñu dugg ci sa mbir de déedéet du tax ñu ñu ñu wax la euh, nooy taxawee ak nooy organiser déedéet parce que fi ngay dugal nag sa loxo dafa nekk lu ñu bokk lu ñu bokk nag dëgg yàlla du sa njàmbaar rek euh, olof dinay wax ne euh, nit moom da ngay xàmmee li nga moom li nga bokk ak nit ñi ak li keneen moom yaakaar naa ne <clears throat> si loolu gën a valable li nga moom li nga bokk ak nit ñi ak li keneen biir kër di man ne bu subaa force bi dama koy jël suul ko kas si teg ko ci fële mais bu dee mbedd mi nag ah da nga bokk ak nit ñi boobu moom da ngay fa nga waxtaan ak ñi yore waa mi tout ça ne ah fi de su ma sañoon euh, génne fi lii ñu ne déedéet sëñ bi li li mën a bu dee sa biir kër doo tàggu kenn moo bu ñu xàmmee ñett yooyu rek xëy na am li nga moom li nga bokk ak nit ñi ak li keneen moom li keneen moom mom xëj na ci xajal rek wala nga bàyyi ko gi fam li nga mom ah sañ nga see dogal doo ci waaye li nga bokk ak nit ñi nag da nga ko war a waxtaan ak nit ñi loo bëgg-bëgg loo jàmbaar-jàmbaar loolu yàlla mën may wërsëg li nga bokk ak nit ñi mom fu dëgg yàlla boo deful te waxtaanee ak ñu ko yore mën naa jur ak tooñ te pourtant sax jubluwoo ci tooñ waaye da nga ko bokk ak nit ñi donc da ko war waxtaan ak nit ñi waaw loolu nag dafa laal problème assainissement assainissement dëkk bi moom moom ñëpp dañ ko seq donc faw ñu waxtaane ko mais gannaaw alhamdulilah bañ ko organiser mu am plan directeur maanaam xam nañ fan la ñuy jaar léegi loolu ku am plan directeur doo téeli téeli rek xam nga fan ngay jaar te loolu Touba am na mérite am plan directeur d'assainissement waaye bu amee ba pare nag dañ koy dañ koy respecté